ayca mi ngi noonu mbokk internet Dakar Buzz euh, ki ñu taxawal nag euh, di Samba nekk artiste comé comédien bu mag a mag ba noppi it euh, nañu ko ci tele yi nekkoon wala ki nga xamante ni moo di Ndiaye Samba maa ngi leen maa ngi lay fay si sa lal di la ziar bu baax di la sa wàccuwaay. ban yëg-yëg nga am tey ginnaaw bi nga xamante ni sa waa ji dem na. waaw yëg-yëg bi ma am ci sama waa ji dem na mooy que tey am na lu ma metti lool am na lu ma metti ndax tey. yàgg naa am ay dëj sama papa gaañu na waaye daanaka bu ma sama papa fu ma toll rek fa dama biy toll ndax njaay nekkatul woon mag ci man nekkatul woon xarit papa la doonoon ci man ndax nit ku yëkkati ay yére grand boobu di la ko jox yëkkati ay tubéy di la ko jox yëkkati xaalis di la ko jox fu muy dem ak ku ko engagé programme man lay àndal kenn du ko gis muy séendoog beneen comédien ku dul man Gambie Mauritanie fépp partout partout dans le monde fu ko nit woo arbre de Noël décembre ñu koy liggéeyandoo ba mu jeex takk fu ko nit woo ci programme spectacle rek danaa la dafa am ku may àndal caravane ku ko woow mu ne la du man kese da am ku may liggéeyal muy Samba kon donc man su ma nekkee ci aar bi tey toroxuma yàlla ak njaay la wallahi moo ma teg loxo bi ma sonnee moo teg loxo bi ma sonnee moo ma doon jël di mu yóbbu fu nekk may ànd ak moom di am dara di dundal samay njaboot kon koo xam nga ne sori na ci man sori na ci man. gëj ngeen déggante. déedéet. alxamis laa fi jóge fekk ko clinique bi commencement feebar bi ba léegi maag moom clinique bi alxamis laa fa ñëw fekk fi jabar ji ak Ousseynou Souleymane ñëw noonu tuuti mais mi fekk ci clinique bi mu fekk def na opération bu pare toog noonu mi ngi jeex benn yoon li ximaliku rek ne ma dala munte moom dala munte la may wooye mooy sama surnom artiste mu ne ma dala munte mu a ko Abdoulaye Ndiaye yaa ngi tane mu ne ma ah maa ngi nii rek maa ngi nii rek loolu la ma wax maa ngi nii rek mu tëddaa tuuti commencé nelaw mais dañ koy xool xam ne kii sonn na parce que est tellement maigri jeex tak ñu ne def na opération yaa ngi koy wax léegi kon feebar bi ci biir la woon. feebar bi ci biir la woon feebar bi ci biir la woon tumeur la amee woon amu tumeur bu ñu nee genre cancer tumeur la amoon tumeur colonne ci colonne bi la ko amoon diggante ndigg parce que sama rappel bi ñuy mujjee dem spectacle Mbour da doon taxaw di wax ne man sama ndigg li day métti Samba solol na ma bësal ma ko maaseel ma ko bu ko koy maaseel nii. ba ci yàgg mu ne man est-ce que sànni wuñ ma ay kott liggéeyuñ ma sax ma ne ko non non Ndiaye liggéey liggéeyu la kenn def la dara xam naa coono fatigue naa la mais boobu comprendre luñ depuis depuis octobre bi ngi suuxaale feebar bi octobre ba léegi maa ngi moom ci feebar bi. octobre 2020. 2021 bi mi ngi suuxaale ak moom affaire bi ndiglu yu métti la ko commencé jàpp yaram yi muy toog du mun toogaay bu yàgg du mun dafay activité yu bëri ba noonu ni muy jékki-jékkee dem mu jékki-jékki génn mu dem clinique Pasteur yi dem gars yi xool ko. def ay affaire def rajo def affaire photographie yone ko laboratoire affaire yi génn mu gis affaire bi mel ni dafa am genre pas tout di daal waaw noonu daal nekk feebar daal bu yéeme daal. kon daal feebar bi tëddaloon na ko comme. non feebar bi tëddaloon na ko complètement dajoon naa nekk activité bi activité bi mujjee génn siif ko boobu dafa yaakaaroon tare na tuuti muy que fii la ñu toog ñu woowee ñu spectacle ministre des sports Matar Ba ñu ñëw fa dem dem dem joué ko moom. ñoo fa ànd joué ko jour boobu la mujjee joué spectacle ñoo ànd joué spectacle bi maag moom pare si ci biir feebar bi ba ministre bi nga koy gis sax ne ko da ngaa jeex mu ne ko si damay mu ne ko si damaa feebaroon ndax moom ministre Matar Ba xaritam la ministre Matar Ba suñu xarit la su ma saan def dara Fatick sax daf ñu naan invité man ak Ndiaye ñu ñëw nit ko baax la macha allah spectacle boobu décembre la woon arbre de Noël décembre la woon. ba boo xoolee am na RTS image bu ñu doon jaarale su ko waa RTS génnee di nga gis Ndiaye TFM mi ngi doon ñaanal Sénégal yàlla na jël coupe du ku yàlla na yàlla na jël coupe d'Afrique bi réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm bu ne heureuse année RTS jëloon na interview boobu boobu la mujjee boobu la mujjee def programme spectacle. yan seede nga ñu mën a def ci soxnaam ginnaaw ku ko jege nga woon daan àndax. soxnaam amuñu fayam muy Awa Sarr dañ koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko dal fan soxna su dal su bëri jàmm nit koo xamante ne bi Ndiaye feebaree ba léegi dafa tëj sonoom salon la ko Ndiaye ubbil fii ci Yoff mu nekk fi yor fi salon mais def ko tëj nekk nekk ak jëkkëram di ko soutenir di ko jàppale guddi ak bëccëg di seere xale yi moom dañu koy ñaanal yàlla rek di ko wax na ko yal na ko yàlla may xulub mun amuñu fayam amuñu fayam amuñu fayam suturaal nañu nekk naag ñun bëgg nañu ji nañu te jëkkëram lu mu bëgg a def ci lu baax du ko ko xañ danaan ko continuer defal lii lu baax bu ñëwee ñun ñëpp lay yaatal fii sa kër la lu ma neex laa fii def fanaan tout lépp su ma ñëwee lépp def soo Ablaye Ndiaye ñëwee lii laay jox Samba bo ne ko noonu jox ko bee moo gën a rafet ubbil yére yi jox ay nit bu baax lañ ay nit baax lañ wallaahi bu baax lañ. ñu ngi la koy jaale di la masaw di ñaanal yàlla may la xolu muñ yàlla ko ndax mbokk Sénégal la waaw na ko yàlla jërëjëf yàlla na yàlla nangu ñaan rek waaw fi mu jëm yàlla na ko dàqal rek fi mu jóge ndax Ndiaye ku ne mën na koo jaale boppam di la ko jaale waat na sa mbokk artiste la di ko jaale Sénégal gi yëpp rek ko jaale Sénégal gi yëpp lay wax métti na de métti na lool sax métti ngi fàttaliku kàddu yi ngeen mujjee weccante. waaw kàddu yi ñu mujjee weccante mooy que su ma mënta ñëw parfois ndax sax parfois damay toog cinq jours quatre jours doog fi ñëwaat parfois bu ñu déggantee téléphone ay kàddu ay projet yoo xamante ne ni tey. mi ngi fi parce que Ndiaye nit ko am ay projet la am na ko dugg si léegi dafa ñëndoon ay caméra valeur 3 millions jox ko muy Traza TV xarit Traza di suñu benn jigéen di jigéenu Pakaay Mbay mi ngi interrogé léegi mu koy wax moom laa àndal léegi dugg si kooku feebar bi lépp daf ko jël en charge jaay di ko jàppale ñoom soy bu jóg ak ñeneen ak ñeneen tey kooku tey xarit traza tey bi ñuy mujjee waxtaan maak Ndiaye ci projet yooyu la ñu doon waxtaan parce que dafa ne ko euh, site bi bàyyi ko nga jël te ko fee jëla caméra mu nga teye xaalis bi suñu soo jugee ci lii boo wéree mu ubbi parking la rose jox la nga gérer parking bi ngeen ñëw yaak ñoom Samb mu ne ma bu ñu parking moom nga yor auto di dose lu neex ngay def moom day kaf rek day day kaf jërëjëf Lalla merci nga xam ne mooy dërëm moom tamit ñu koy mastawo bu baax ndax dërëm ku ko xam rek ah, xam ko ak ki nga xamante ni moo di moo di njaay boobu ba léegi gis nañu ko ñu bari moom la ñuy woo sonn na tamit ci feebar bi dërëm ñu ngi leen di la jaal. maa ngi leen di fay di leen jaal yéen tamit di jaal Sénégal yëpp rawatina mbokku internetu Dakar Buzz di jaal Kouthia mi ñu xamaleeg njaay di jaal TFM yëpp. di jàll Sénégal gépp rawatina Awa njaay ak ay mbokkam euh, tey ji tubarkalla euh, yàlla day nangu dogal te ñun yàlla moo ñuy teg ñuy nangu nangu nan ko bu baax a baax dogal bi mu ñu teg te ki ko ki ki dem tey moo daf ko nangu ak gëm yàlla soo ñëwee sax yow nga moom dañ la feccal bi ma mujjee ñëw tout récemment dama ko fekk ci saal bi mu julli ba pare toog bi mu jullee toog ma ñëw toog xam ma xaw a mu daal di may xool daal di jug ne yëngal blouson bi ni ma xoola dërëm sama blouson bi jeex na amatuma sax lu ma lëmbale ñu wax rek mu commencé lëmbal ma ne ko yow maa ngi la seet si triste yow nga may retaan loo mu nekk koo xamante ni feebar bi natt bi dal na ko mu jël ko ak gëm yàlla gëm yàlla lool dawul xaddiwul benn yoon nangu ko ba yàlla indi ndogalam ñu nangu ko di ko ñaanal ndax looloo ci des yàlla fa mu jëm gënal ko fii mu jóge yàlla oyofal suuf ci kawam atte ko ak yërmandeem ndax euh, bu fekkee yàlla xol rek lay fay Ndiaye moom amuñu luñ si tiit parce que xolam rafet na te bégal na àdduna yëpp comme waa àdduna yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu ñaanal ñu ko euh, maag pénitentiaire mais taxaw ñun ñaan ñoo nekkandoo woon ak moom fële ca TFM ak Kouthia di bégal askan wi te loolu rek lañ ko xamal comme di wax ni nit ku rafet ku bëgg njabootam ku bëgg jabaram ku bëgg sénégalais yi njaay daal ndawalu guddi la ku njëkk a rek danga naan maa moom lépp. comme nan ko ñaanal yàlla rek yàlla bu ko cet jiitu ci bàmmeelam yàlla na ko lu baax li mu daan def ci àdduna yëpp fekk ci bàmmeelam ba foofu gënal ko fii mu jóge lii laa wax euh, yow mi nga xam ne fekke woon nga ko lu baree bari xam nga ko euh, ci ci ci ci feebar bi ban genre ban genre feebar moo ko yóbbu tey parce que ñu bari dañ doon wax ne njaay dafa tawat dafa tawat ñenn ñu ngi doon wax ne faju bi sax demeewul noonu. Ah, kay déedéet faju bi demee na noonu faj nañ ko niñ ko war a fajee taxawu nañ ko niñ ko war a taxawoo. wax dëgg yàlla moom bi ñu koy wax sa affaire nañu seet nit ñu baax ñi la xam ñu dafa bañ yow mii woo nga ma tombe ngay interview sama kër ma woo ko téléphone ne ko est que Lalla du ñëw defal la loo xamante ne sa fans yi nga xam ne am nañ doole jàppal dafa bañ comme kooku xam na ne waa TFM taxawu nañ ko parce que man wax nañ ma ko nee nañu Émilie bépp ordonnance bu fa ñëw Émilie jël na ko mooy suñu DRS jël si na ko jënd nañ comme taxawu nañ ko duñ ko war tax yàlla nag mooy ki moom lépp def lépp ñi ngi sant ñëpp ku jàpp ak ku jàppul ak ku jàpp ci xolam ak lépp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax yàlla daal mooy tege te teg nañ te nangu nañ ko une perte nationale la nag àdduna ñoo ñàkk du ñun kese ku nekk mën nga koo jaal sa bopp feebar bi moom macha allah ñëw na ak yi nañ ko duñ ko waaye ak feebar bi yàgg na si yàggul bi mu ko manifesté bi mu ko yóbboo benn la yàggul benn yoon yàggul te boo boo boo ko woowee téléphone da nga naan dara jotu ko mais boo ñëwee jàkkaarloog moom di nga xam ne yàlla rek moo fi ne nit du dara. kon sonaloon na waaw tuuti rek tuuti na démb démb bi ma jógee télé ba woo naa Jules hmm, rakk ci woo Awa ñu wax ñu ne ma ñu muy tane def nañ ci lépp lu ñu war mais yàlla nag moom moom ay dogalam te moo moo ñu fi indi bu indi du ñu tàggu bu yóbbi du tàggu kenn te nangul nañ ko ko waaw. yan kàddu ngeen mujj a weccante. Ah, liñ mujj a weccante man maa ko woo ne ko man ak Faye fay benn douanier boo xam ne suñu xarit la woon dañ ko daan fekki euh, port man ak moom fay boobu ma ne ko maa fay dinañ ànd ñëw ak asan global textile ñu ñëw seet si la parce que ñoo ñëpp suñuy nit lañ dama leen woowoon ne leen dafa feebar nañu ànd dem seeti ko lii lañ mujjee wax ma amul benn problème après nag mujj gi su ma woowee rek Jules laay jot wala awa ma xam ni comme dafa sonn waaw la koy jàll ba wala koy jàll Sénégal yëpp yow tam ma di la ko jàll yow it ku ci sonn nga soxna laal Lalla ku ci sonn nga ndax chaque jour nag may wax naa ko interview pour nit yëg ni yore na jàngoro mënu la déedéet yow tam ñu ngi la koy jaal di ko jàll waa Dakar Buzz di ko jàll àdduna bi yëpp ndax euh, njaay daal njaay Sénégal yëpp njaay international ñàkk nañ nag waaye Sénégal yëpp a ñàkk mhm, ma koy jàll ñëpp. Euh, ba tey dañuy continuer jël suñu yaay bi moom nee na dëkkandoo la si moom yaay ñu ngi lay leen di fay. ak Ndiaye yéen a dëkk. ñoo dëkk sama kër a ngi nii tubaarkaal nag ñu yàgg xamante loolu nag sax nijaayam mu ngi fii ci ginnaaw kër nijaayam bokk yaayam rek waaye Rayana Diouf mi ko jur ci kër ne mu ngi nii ma yàgg koo xam lool nag waaye maa ngi gën a miin ak moom nag ci kër Maguette Gueye Mbengue comme li oustaz Seck Assane wax léegi ci télé bi parce que Ndiaye dafa ñëw di ànd ak David Dieng Seck Maysa Dieng Malul Silla ñoom Benz ñoom Moustapha Cissé ñooñu ñoo loolu àndal di fréquenté sama kër xarit Maguette Gueye Mbengue falaa mii nekk moom mu duñu ma ay dédicace mu toll nag su ma ko ne dégguma ko dee ba de mu ne ma dugal naa la Adja Penda Mbow yàlla dogal mu toxu si fii nag man sama kër a ngi fii may jaay la fekk ba ci biir koor gi ma ko mujjee gis fi la ma romb ànd ak doom ji ma ne ko waa Ablaye yow man maa ngi la doon seet démb ñu ne nga dem rendez-vous mu ne Adja tane naa bu baax jeexaay bi fi des rek ci am jomam rek ndeke yow man nag sama rakk jëkkëram gaañu bayax falaa joge jóge nii yàlla xam ne yéeguma sax ma sànni saak bi rek bi ma waxee loolu ndax am tiitaanga ci moom mu ne ànd ak jabar ju baax nag awa saar awa dem na ba tëj ab salon ngir seede jëkkëram Saliou ja saar jur ko nag ak seeni fay awa daan dooleem rek la xam ànd jëkkëram ma góor xamal ko dara ma jigéen xamalu ko dara ñun ñi dëkk ak moom ci koñ bi yàlla xam ne ku xamul Ablaye ci télé bi mbaa feneen déggoo lu awa jàmbat baa mu wonk ci biir këram gi mu ngi toog ànd ak jëkkëram ak ngoram mu koy ñaanal yàlla Ablaye njaay fa mu jëm yàlla na ko gën a fi mu jógee Ablaye Ndiaye nit ku yaru la ku am respect la ku am jàmm ko am salaam man day barke Serigne saali Mbacké tey ji laa am ci wom lu ma naqari nit ku am jàmm la yàlla na ko yàlla yërëm te yexenu maa ngi koy jaale seeni fay di ko jaale Saliou Sarr di ko jaale ñoom Sali ñoom ñëpp maa ngi leen koy jaale tubaarikàlla yal na yàlla oyofal suuf ci kawam maa ngi jaale Adja Koné jëkkëram mbay maa ngi koy jaale bu baax parce que moom yaayam ñoo bokk ndeeg baay boo tourné fii muy këram waaw tubaar tubaarkàlla daal nun tey loolu am ci moom na naqari am na yar am na teggin am na sutura yal na ko malaakam yar ma ne teeru teral ko xuloowul xeexul xastewul reetaan rek bu dajee yow ci tali bi sax mun naa la may naa la dédicace def naa ni def naa naa di nit ñi rek yal na dajeeg malaakam yar ma ne malaakam mu sedda sedda sedda sedda am àjjana ji gën a kawe yal na ko fa yàlla yóbbu maa ngi jaale xale yu góor yi nag maa ngi jaale Oustaz Assane Seck di jaale ñoom Maysa Dieng ñoom David sek ñoom Medul Silla ñoom Benz tubaarkàlla waa groupe am boobu maa ngi leen di ñaanal yàlla leen dëddoo jàmm Ablaye Ndiaye ko mu naqare yàlla na la njabootam gi mu fi bàyyi doom yi yàlla na leen yàlla yëkkat ca kaw a kaw a kaw yàlla na yàlla yërëm te yeexenu jërëjëf man sama kër gi ñëw jàkkaarloo face à face nii tubaarkàlla Awa Sarr daal jàmbaar la ba jëkkëram dem yàlla na ko dëddoo jàmm jërëjëf